di félicité ki nga xam ne moo fi jógee di président Alioune Sarr ndax gis nañ fu mu jëlee làmb ak fi mu ko indi waaw def naa def na ci liggéey bu ama amam solo donte que nag mat moo xaw a jafe donc di ñaan yàlla ki nga xamante ne moo fi nekk di biraseen yàlla jàppale ko kattanal ko ba yaakaar bi nga xamante ne moom la yi am ci làmb ak promoteurs yi ak managers yi ak ñi nga xamante ne ñu ngi nekk sax stade di jaay di suturlu yaakaar biñ si am mu bañ a tas donc yàlla na yéen ah Idaly moom wax dëgg fa yàlla dañ koy encouragé ndax ku déggal di Ronaldinho wax ne amaana bu duloon avance bi ma dem jël gaal gi dem donc loolu rek jar na encouragé ko di ko ñaanal aussi tamit li nga xamante ne moom la bëgg si saison bi yàlla defal ko ko. champion yi mu tëgg fii nag mu nekk ay champion yoo xamante ne man xam naa leen ndax kii di Konia 2 xam naa ko bu baax mu nekk mbër boo xamante ne vraiment champion la li ma gën a nekk ci moom mooy sport bi muy def ko bëgg maanaam dafa bëgg làmb moom foo daje moom bëre lay wax waxul laneen lu dul bëri nekk champion nekk ndaanaan vraiment di ko ñaanal jàmm am ménagère am sëwru bi ko yor nekk un doyen nekk koo xamante ne ku jox làmb cër la di war a daje ki nga xamante ne mooy Ronaldinho ñu dëkk yàlla dogal ma ko moom aussi tamit mu nekk champion di ndaanaan donc ñoom ñaar combat bu jaadu la ndax kii dafa war a relancer carrière jóge si défaite kii war a confirmer carrière am jóge si victoire te nekk ñoo xamante ne bu ñu bëree dañoo war a bëri di ñaan yàlla yàlla jóobu leen si ak jàmm ak salaam que le meilleur gagne donte que kii parce que li ñu yaakaar ci làmb bëri na te ku nekk li nga yaakaar yàlla na la ko yàlla defal di bu jour ba képp koo xamante ne toog na fii bu ñëwee foofu kontaan yàlla dogal ñu bëre lu neex euh, combat bi nga xamante ne moo sopp di Iba vraiment ma xam ko bu baax ñu dëkk Tëngéej di waxtaan lu bëri nekk koo xamante ne vraiment boo ko gisee da nga naan du mbër mais su bëree vraiment nga xam ne kii am na lu nekk ci moom donc bëgg làmb ñu gis ne doon na ko caaxaane waxal na ko boppam da daan ñëw nu ko neexee bëre nu ko neexee dem ñibbi mais noonu mu ko doon def nu ko neexee may na ko tur tey mu dab làmba dab ka que ne war na mën a am dara si làmb bi mu ñëwee tey gis nañ ne Ibba bañ daan gis ah Ibba bi toog tey bokkul gis nañ tuuti maasi moom si communication sentir nañ ci ak sérieux xam na fu mu jógee xam na fu mu yem taw wax na fi mu bëgg dem kii muy bi bëreel nii tamit champion la ah, seetaan naa ko su juumul si Matar Ndiaye sax laa ko ñaanal yàlla aussi tamit jàmm ñoom ñaar ku leen dégg ni ñu waxee nii vraiment bu jour ba bu arbitre bi sifflé dinañ seetaan combat bu neex di leen ñaanal aussi tamit jàmm que le vraiment li fi wax nii yëpp pour neexal làmb la te làmb aussi tamit noonu lay demee di leen ziar yéen presse bi vraiment am na foo xamante ne yéen a làmb vraiment parce que tey amaana lii télé nga doon dem defi ko mais bu yàlla dogalee ngeen disponible ñëw fekk si a mais état bi aussi tamit bu déggee wax ji rek war na xam ne vraiment ñii war nañ leen jàppale parce que gis nañ gaal gi nu muy dem donte nag conseillé ñu kenn mu dem mbëkki mais nag tolluwaay la nit ki fu muy toll ba ne day dem moom moo ko xam vraiment di leen wax ne aussi tamit ñu jéem a toog euh, ñu bokk ndey bokk bàyyi liggéey rek te xam ne làmb moom ku si nekk da ngay dugal sa loxo rek loo si daj nga xam ne loolu ko def yàlla na yàlla def jàmm daal